أكرمني وجعت لله حمدا وهو كرمني بالمصطفى وبه لجاد بالأمن وجعت لله حمدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته leen di nuyuwaat baax di leen siyaar di leen jaajëfal bu baax di am mbégte bu baax ci dalal jëwriñ sëriñ Moussa Fall ci liggéeyub daara Fatul Wahab di taxawal gëddu gàmm bëggoon mu ñëw ci ay leeral yu gàtt rek ci lu jëm ci programme liggéey bi wàllum installation bi ak njàngum kuréel meeg ni ñu taxawale guddi gi nan lañ koy amale fii mu indi ñu ci ay leeral yu gàtt incha allah bisimilah kon jëwriñ sëriñ Moussa bisimilah. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen bu baax a wax di mbokk taalibe yëpp di ziare waa daara Fathul Wahab gépp rek di siyaare jëwriñ sëñ Abdou Khadir Dieng di si jiital si liggéey bi ak mboolem ñi mu àndal liggéey bi ñëpp rek ñu leen di siyaare di jaarale sëñ Mahamadou Mountakha yàlla na ko yàlla suñu borom yàggal lool dama ànd ak wér barke borom gàmmu gi màggal guddi gi loolu Fathul Wahab moom jàmbaar lañ ci lool te yàgg nañ koo taxawe xanaa boo xool depuis mille cinq ba jëm mi ñuy wax ak ñun sa guddi mawlit dañ koy taxawal. du ko màggal comme ni ko sëriñ bi santaane woon comme ni mu ko daa defee sa njaareem noonu la ko daara ji di dundale programme bi nag di ñetti fan yëpp mën naa ni ñu ngi ci daara ji di ko waajal ci bépp wàccaay ci li jëm ci xéwal yeeg jëm ci baasu beeg ak mbokk taalibeeg yëpp rek di ko di di ànd ak waa koñ bi yëpp fii ci Médina ñu koy def fii rue 26 angle 35 foofu lay amee kon tey ji ñu ngi ci bis bi di waajal guddi gi waajtaayu guddi gi nag li ci ab soli mooy njàngum alxuraan ak xasida ci noonu lañ koy dundale kuréel yi tamit ñu ngi ci wàccaay bu guddee kuréeli daara ji daara Fatul Wahab Medina daara Fatul Wahab Petit Mbaaw ñoo koy ànd boo demee Touba tamit Fatul Wahab ña ngi ko fay taxawal si kër Sëriñ Abdoulahi Mbàkke borom dër bi comme ñoom it na ko fay dundal bu baax a baax boo ñëwee fii si Ndakaaru tamit Fatul Wahab Mbaaw ak Medina ñoo àndal di ko dundal si guddi gi guddi gi ni ñu koy fas yéenee commencé mooy njàngum alxuraan si kaamil yi guddee ñu boolee durus xasida yi ak di yëkkati xasida yi ndax yoon guddi mawlid moom li Sëriñ Tuubaa bind ak lim ci way booy xool moom day daal doy sëkk bu dee kuréel yi ñu ngi waaj kuréel mbaaw kuréel 1 kuréel 2 kuréel tànk yi bu dee biir Dakar kuréel kuréel 1 Dakar kuréel 2 kuréel 3 ba ci kuréel national bi nga xam ne mooy tëj guddi gi fas yéene ko fanaane ba set wicc loolu nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom dimbali ñu ba ni ko fas yéenee taxawale ak ni ko fas yéenee dundali si guddi gi yàlla na yàlla suñu borom nangu lépp ci barkeb Seexul Xaddim loolu nag ñu ngi sant jëwriñ yi nga xam ñoo jiite liggéey bi bu dee wàllu conservatoire bi jëwriñ sëñ Fallou Niang mi xam moo ko jiite sëñ Xaadim Niang sëñ Moussa Fall ak moom la ñu ko àndal ñëpp muy conservatoire bi nga xam ñoom ñooy tënk wàllu guddi gi nga xam ne programme bi kuréel gu nekk heure bi nga war a commencé ak heure bi nga war a bàyyi ba ca fajar ga incha allah kon noonu lañ ko fas yéenee dundale ak kàddu yi nga xam ne jëwriñ ju mag ji dana ko jàllale si guddi gi pour soññee pour waajal déwén ndax yoonu yoonu moom noonu yoonu murit noonu lay doxe lépp loo nekk nanga fexe ba jekk waaye saa nag boo si tàbbee rek li nga war a defaat mooy waajtaayu déwén kon daara ji moom si loolu si noonu lay doxee kon fi doon mën naa ne gàmmu gàmmu ren bi mën naa ne moom pare leen ñu def mooy waaj gàmmu 2025 incha allah dox jëm si mi ngi sant mbokk taalibe yëpp nag ci taxawaay bi ci liggéey bi ci pëseefu ak bëgg liggéey bi loolu lépp nag ku si nekk xam na xam nga li la si war nga nekk ca rek loolu moo koy moo koy waral ba liggéey bi toll fi toll kon heure bi ñu toll ni doon daanaka yëf mi ngi waaj sotti ndax ñu ngi waajal xéewal yi nii a def yëfi a añ te loolu ñangeen yeeg jangeen yoo xam naa la si war buñ paree tamit ñu ngi koy dox di ko doxal doxal ba suba jàmm incha allah kon loolu moom noonu la ko sëriñ bi santaane ci loolu la nekk berne ak jàng alxuraan ak xasida ci loolu rek la nekk daara fatul waxaab gépp ci loolu lañ tënku kon loolu ñu ngi santaan mbokki taalib bi yëpp tey bëgg ci taxawaay bi di ñaan suñu borom nangul ñu ko te fu lu defal ñu ay xew ñu fekk ko ay at yu bëree bëree bëree bëri barki Seexul Xadim salaamaaleykum wa rahmatullah di jaajëfal site bi nga kon ñoo ñu ngi leen jaajëfal bu baax a wax di leen wax li waaw luñ góor nii rek la liggéey bi moom nii rek lay doxee bu leen ci kenn man imaginer set tey rafet tey sell rek te son bi normal loolu rek la mbokk taalibe yi soxla kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax wax yàlla suñu borom jàppale leen te yokk seen liggéey barke fépp fu média di àgg rek suñu borom àgg leen wala fu ko raw barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëfati fidaari am fidatan yaa musiban laka bi wa zaidan kulla بليلة القدر ساح الفضل والرقم إني أحبك حب سادس طلب لمالك فيك إسعادا بلا أود السلام عليكم ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziar di jox ñëpp seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku si yéen di jiital si nuyoo bi ak ziar bi xalif général euh, sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu waa Daara Fatou Wahab jël nuyoo bi teg ko ci suñu jëwriñ sëñ Jili Dieng mu jàllaleel ñu ko ci mboolem ku nekk ci daara ji di nuyu sama mbokk soxna yi bàyyiwuma kenn di santaat yàlla bu baax bi nga xamante ne fekk nañu euh, bisub gàmmu gi nekk taw fee di ko màggal ànd ko ak waa Daara Fatou Wahab di santaat bu baax sama mbokk soxna yi tamit ndax wax dëgg yàlla boobu ba tey ñu ngi si waañ bi di bëgg lépp jag démb ba léegi ñi ngi ànd ak ñun liggéey bi heure bii démb mi ngi leen fekk sa marché ba gis nga leen tey ba ñu xëyee ba léegi ñu ngi si waañ bi préparé nañu añ yi ba fi mu nekk pare na sotti na fi mu ne séddale rek moom moo des moment bi may waxee ak yéen nii am na ñoo xam ñu ngi si reer bi moment bi may waxeeg ak yéen am na ñoo xam ne instant bi ñu ngi préparé reer bi di bëgg lépp guddi gi jag te bu ñu paree si waañ bi ñoom sama mbokk soxna yi kenn du leen mën sa durus ba ak ci wir di salaatu ala nabi yi moom ñoom tamit daal ñi ngi leen di ñaanal bu baax a baax fépp fu góor yàlla yi taxaw rek ñoom i tamit taxaw nañ fa bu ñu laajee kenn du leen mën bu jàng jotee durus jotee kenn du leen si mën te lépp ànd nañ ko ci yar ak teggin wax dëgg yàlla kon nag maa ngi santaat ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di tuub bu baax si kàddu yi bu fekkee dëng na rek mata di doomu aadama la waaye lépp loo xam ne jub na si rek ndimbale suñu boroom la di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay at yu baree baree baree bari di ñaan yàlla suñu borom ñu yeggaleeg jàmm te yàlla nangul ñu lépp si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax guddi gii ñuy màggal tey guddi tamit gënu koo rey ndax te mooy guddi gën gi mbindeef defal ñu àggalee suñu sago te yàlla nangul ñu lépp di santaa sama mbokku jëwriñ yi bu baax ndax ñoom tamit ñoom ñoo ñu dooleel à chaque fois ñu ngi ñuy encouragé fu ñu geesu rek ñoo ni gis leen kon nag jërë jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi ak wëllëre ak am di jàmm yépp rawatina waa daaray Fathul Wahab ji nga xam ni jamono yi ñuy àddu yéen ci liggéey boobu lañ nekk yàlla dogal ñu am kàddu yu gàtt rek ñuy yëkkati jëmale ko fii ci barab bi nga xam ne fi la ñuy saytoo xéewal yi muy waañu yi nga xam ne moom la Fatul Wahab taxawal di fi def ay xéewal ci bisu bis bu tedd bii di bisu gàmm fas yéene ko jagleel mboole mbokki taalibe ak am di jàmm yëpp rek ñëpp mën cee xéewlu bis bi nag di bisu cant tax ñuy waajal fi ay xéewal yaatu ci barab bi nga xam ne mooy waañ wi ci njiitul soxna nday Fall ak soxna May Fall ak sunu dëkkandoo bii di maire Absa Gaye nga xam ne moo ñu yaatal fii ci këram ànd ak ñun liggéey bi ak jëwriñu mbaaw yëpp soxna Ndey Faatu ak soxna lay Ñang ak mboolem waa daara ji ñépp nga xam ne ñoo nekk fii di saytu liggéey bi xéewal itam yaatu na lool wax dëgg yàlla macha allah ndax boo xoolee taal nañ fi lu mat juróom ñaari mbana yoo xam ne lépp ay xéewal la jëm ci lépp ay xéewal la lépp ay xéewal la jëm ci ñeel mbokki taalibe yëpp ñuy ñaan yàlla sama borom buñ ko xéewloo muy suñu njéggalu tey ak bànneexub ëllëg barke Seexul Xaddim naka ñoo nit dañ fa waajal tim ay yeneen i xéewal yoo xam ne mi ngi fi yoo xam dana jëm ci wàllu guddi gi incha allah kon nag mboolem soxna yi ne ci waañ wi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan yàlla ñu teewe ko at yu bare bare te kenn bañ a manqué ci barke Seexul kàddu yi ñu yëkkati yépp nag ci kàddu jëwrin la sëñ Abdou Khadir Dieng mi nga xam ne mooy kilifa liggéey bi ak mboolem ñu topp ci ginnaawam ñëpp ak waa kuréel bi ñëpp kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey woo ñëpp nag ñu ñëw teewe bis bi ndax bisub yonent bi la sallallahu bisu wa la bisub cant la ñu ngi ñaan yàlla ñu yàgg ko fekk at yu bari te kenn bañu naan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu inni uhibbuka ya siyami bila